أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين عليهم أجمعين مبكي جلدي yi gannaaw سنتي على سن yàlla suñu boroom cant gu yàlloog jëmam ju tedd ju màgg ja julli sallallahu alayhi wa sallam dellu si waat nañu ànd ak yéen fii ci zawiya maam cheikh alxaaj omar al fouti radiallahu taala anhu ci seen tafsirul quran bi ñu leen baaxoo defal ci weeru koor gi àndante koog seen télévision safina tv ak bokki jullit yiñ ko àndal yépp ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ko mboolem jullit barke alquran yàlla na wàcc ci sunu kaw wàcc ci seen kaw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buur nee na qul yaa ayuha nnaasu in kuntum fi shakkin min diini fala abudu alladina tacbuduuna min duni illahi ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم وأمرت أن أكون من المؤمنين تيفوف لني تنبلي aaya boobu yàlla moo ko wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam booba la yàlla yónni yonent bi ci waa màkka waa màkka di werante ci yàlla ko yónni am yàlla yónni ko ba yàgg ñuy werante di ko laaj sa yàlla ji lan la ndaxam përëm la wala sa yàlla ji xaalis la wala bant la ñu ngi jaamu ñetti téeméer yàlla ak juróom benn fukk suñu aaju yi mënul faju nga xey xey fekk yàlla ji nga xam ni say baay say maam say maamaat moom lañ doon jaamu nga ni yàlla yooyu ay caaxaan la nañu jaamu benn yàlla ñun yàlla boobu duñ ko jaamu soo mënee nga ñëw ànd ak ñun ci yàlla yi nga fekkoon sa baay ak sa maam yi di ko jaamu ñu bokk ko jaamu waaye seen yàlla sa jenn yàlla jooju ñun waa màkk duñ ko jaamu yàlla ni yonent bi xul waxal yaa ayyuha naasu ey yéen waa màkka yaa ayyuha naasu boo gis ci biir alquran rek màkka la wàcce yaa ayyuha alladina amanu boo gis xamal ni medina la wàcce wala bu fekkee yoonu màkka la wàcce itam fekk na booba yonent bi gàddaay na bu jógee màkka dem medina ba ñu ëpp gëm nañu buur waxal yaa ayyuha naasu ey yéen nit ñi in kuntum su fekkee nekk ngeen fi shakkin ci sikk sàkk mooy werante min diini ci sama diine su fekkee nekk ngeen di werante diini ji yàlla jox muy diini lislaam diine la joo xam ni benn boroom la am am amu ko diine la joo xam ni diine ju jóge ci yàlla la wala jóge wu fa su fekkee loolu ngeen di werante pour bëgg ma jaamu li ngeen di jaamu xam leen man de falaa abudu duma jaamu alladina yàlla yi nga xam ni taabuduuna yéen a ngi koy jaamu te loolu ngeen di jaamu min duunillaahi nekkul yàlla walakin waaye man yonent bi aabudu danaa jaamu allah yàlla alladi yàlla mi nga xam ni yatawafeekum moo leen di rey yàlla mi nga xam ni moo leen dundaloon moo leen bindoon dilen leen dundal moo leen di fat kooku laay jaamu walakin waaye man yonent bi man ak ñi ma gëm aabudu danaa jaamu allah yàlla alladi yàlla mi nga xam ni yatawafeeku moo di fat wa umirtu yàlla moomu moomu digal wala wa umirtu digaleef na ma yàlla moom moomu digal an akuna ba ma bokk minal muminina bokk ci ñi nga xam ne ñoo njëkk gëm ni yàlla kenn la moom la ñu jaamu yàlla moom moomu digal tamit ni ma wa an aqima ما تغوى وأن أقيموني ما تغوى لل ويهاك سكنم لديني غير ديني حنيفا غي جنغ باي في اللب لذل ديني جمتي ديني ولا تكونن بل بوك يو ينتبي من المشركين تيني خمد ديني بوك عليك يالا بل بوك تيني بوك عليك يالا ولا تدعو بل جامو من دون الله لو خمد دي يالا ما لو خمد سوك جامو لا ينفعوك دولا جرين تجامو قد درأ wala yadurruka soo ko bañee jaamu itam munu laa lor fa in faalta su fekkee def nga loolu jaamu loo xam ne du la jëriñ du la lor fa innaka naka yonent bi idan kon min adh-dhalimina yaa ngi bokk ci gaa yi nga xam ne ñu ngi ñoo génn topp de kon li muy jaamu mooy nit ki ne wéet li muy jàngale foofu mooy nit ki ne wéetal yàlla nga xam ne yàlla rek la war a jaamu te na sellal jaamu gi bàyyi na loolu mi ngi indi beneen aaya boo xam ni dafa bëgg nit ku nekk sa ngëm yàlla dëgër muy wax ni nit ki la dara dale xamal ni lool la dal kenn tegule ko ku dul yàlla te kenn mënu koo teggi itam ku dul yàlla moo xam aw lor la waaye bu yàlla nammee ci aw yiw tamit yiw woowu kenn mënu koo fanq faw yiw woowu egsi ci yow buur nee na wa in yamsaska su fekkee daf laa laalal allahu yàlla bi durrin ci feebar wa in yamsaska su fekkee daf laa laalal allahu yàlla bi durin ci ñàkk fala kaashifa lahu ñàkk googu wala feebar ba kenn mënu ko dindi illaa huwa ku dul moom yàlla kon ci loolu ngay déggee feebar bii fi am muy coronavirus bi kenn mënu ko fi jële ku yàlla subhaanahu wa taala moom rek moo ko fi mën a jële ku yàlla mënu ko fi jële waaye man nga ñaan yàlla nag bu mu jóge fi kon jullit ñëpp nañu àndandoo tàllal yàlla seen loxo ak ñi dul julit sax ñu ñaan yàlla mu jëleel ñu fi balaa bii di coronavirus bi loolu lay wax fii waaye kenn amul kàttanu jële ko fi déedéet wa in yasaska su fekkee laalal na la allahu yàlla bi durriñ ci feebar wala ñàkk fala kaashifa amul ken ku ko mën dindi lo ñeel ko illaa huwa kudul moom yàlla waaye wa in yurid ka su fekkee yàlla def laan dafa dogal ci yow baatu in yurit ka su fekkoon dafa jëm ci keneen da nga koy firee namm waaye yàlla moom du namm yàlla day dogal moo tax baatu yurit ka bu jëmee ci yàlla doo ko firee namm dogal nga koy firi mu ne wa in yurit ka su fekkee yàlla daf laa na dogalal bi xayrin ci wiiw yàlla dafa bëgg nga am aw yiw fala radda amul kenn koo xam ne moo mën a delloo li fadli ñeel ngëneelu yàlla boobu mu lay yéene wala ngëneelu yàlla boobu mu àtt ci yow mu dogal ko ci yow yu siibu yàlla mooy jot jotal bii ci ngëneelam man yashaawu ku ko neex min ibaadihi ci jaamam wa huwa moom yàlla alxafooru mooy aji jéggale bàkkaar yi arrahimu yàlla mooy yërëm bàyyi na loolu mi ngi wax beneen aaya aaya bi ci topp mi ngi wax nit ñi ni leen na ngeen xam ni dëgg ñëwal na leen jóge fa yàlla seen borom te mooy alquraanul karim bii képp koo xam ni topp na njubu alquran jooju dana jub te njubam ga ci boppam lay dellu si waaye koo xam ni réer na ba bañ a topp alquran xamal ni réeralul kenn boppam la réeral yow yonent bi kooku responsabilité am doo ko gàddu moo koy gàddul boppam buur nee na yaa nasu nasu, ee yéen nit ñi xat jaakum dikkal na leen alxaqu dëgg min rabbikum dëgg goo xam ni mi ngi jógee fa seen borom mu yàlla فمن اهتدى كبقو خمني جبنا فإنما يهتدي خملني جبم قوغ مجب لنفسه نيال بابا موشي بونفيسو كنين بيشي بونفيسو ومن ضل كو خمني ريرنا فإنما يضل خملني دفا رير ريرم قوغ عليها تكا ومرك لا يدانو وما أنا دين من يننتبي عليكم تيين بوكيل ما يقدو سين بير قدو لمن بيرو كان دي نخي الله وقت القرآن ولا تزير وازرة وزر أخرى yonent bi yàlla def ne ko yow kay yonent bi wattabi na nga topp maa lépp loo xam yu waxee wax yu nañ ko ilayka ci yow lépp lu la jibril indil mu jógee ci man topp ko rek moo tax wattabi na nga topp maa lépp loo xam ne yu waxee wax yu nañ ko ilayka mu jëm ci yow wasbir na nga muñ nag liñ lay lor واصبر نغا مون تونيل ناي تون حتى يحكم باتي الله يالا سين ديغنتي يا جيفري وهو موم يالا غير الحاكمين كوي اتي يالا لا غن من اتي وخان نكا سوره تين عليه الله باحكم الحاكمين بلا اهكي ndax du yàlla mo dakh àtte kuy àtte kon yàlla dakh àtte kuy àtte lu la wax yow yonent bi na nga muñ te tok wo té top li mala wax yu rek man dana àtte sen digënté moo tax mu ne ko wotté bi na nga topp ma lépp lo xamni yu xé wax yu nañ ko ilayka jëm ci yow wasbir na nga muñ hatta yahkum allah ba yàlla àtte sen digënté wa huwa mom yàlla xayrul hakimin kuy àtte yàlla la dakh àtte sadaq laahu lana al azim wa balaqa rasuluna bil mustafa al karim ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ومولانا ورازقنا من الشاهدين اللهم بلغ ثواب ما قرانا وبركه ما تلوناه من كتابك العزيز هدية واصلة ورحمة متصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا يا لدي في يو يجيك روح يا نتي صلى الله عليه وسلم بارك القرآن بارك ويروي جانغور جي نك سنيري ومي كورونا فيروس بي يا في الجلي تبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم